اللهم اجعل قرآننا في الدنيا خليلا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وبيننا وبين الناس سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وامامه بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اهدنا بهداية القرآن وعافنا بعناية القرآن ونجنا من النيران بكلامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن ak adduna bi yëpp ñu ngi leen di ñaan ngeen ñaanal leen yàlla xare leen àjjana ak li si def yëpp ci ñaan yàlla nangu na ko ba noppi parce que benn poche de sang buñ jël sol ko malade bu doon waaj a sukuraat mu far jaar ko wér mucc kon adduna bi yëpp mucc la kon ñi ko bokk ak ñi ko organiser ak ñi ko am yéene maye ak ñi participer ci journée bi yëpp jël seen doole seen temps seen alal def ci

da ngeen am seen benn collègue bi ngeen doon liggéeyal muy Adja Anta Gaye tey muy journée journée bu spéciale ngir mu jagle ak euh, donc de sang bi nga xam ne dañ ko def ak yéen waa hôpital principal muy waa ay collègue ay sœur ay frère ngeen ñëw jàpp ci liggéey bi pour ñu manifester wu ci journée bi tey euh, ñu leen di ñu leen di laaj tuuti rek parce que euh, santé dafa sensible te yéen tey jii li ngeen ci xam ñun xamuñu ko ci mbirum maye deret Euh, yan njëriñ la am bo nuyo mbokk yi ak euh, askan ba pare jërëjëf. waaw jërëjëf ñoo ngi lay sant di la gërëm ci question yi nga xam nga mu ma posé gannaaw bu ñu sant yàlla julli ci salaatu alayhi salaam gërëm suñuy waajur gërëm également waa cité marine ak environnement. donc je pense que question yi nga posé am na solo mais je vais commencer tout d'abord à saluer la mémoire de notre feu disparu mooy madame Anta Gueye mi nga xam te ni elle a travaillé à l'hôpital principal jusqu'à sa retraite donc ñun ay collègues, am lañu di connait di hôpital principal nous avons ñu si muy journée de don de sang nangu ko lol accepter. ko. bi également amna lo xam xamante fekk nañ ko fi moy luy doy war lo xam nañu au niveau des des quartiers pour couvrir des dons de sang mais une journée spéciale spéciale parce que non pas c'est pour euh, un peu respecter la mémoire du de du feu disparu moy madame Anta Gueye également mu tombeek euh, octobre rose. bi nga xam te également dañ ko jagleel bépp jigéen bi dund ci à travers le monde donc ñaar événement yi bu ko boole également ñëw ubbee également événement bi ubbee ci euh, ñaan ñu fi ñaanal man waaye daw yi mooy suñu sœur bi décédé ak képp koo xam ne dëkk nga ci gox bi rek ak feneen toog wàññi olof ñaanal leen ñoom ñi fi nekk na leen gën leen fi jógee mu ñëwee nag ci question yi ma pose également don de dafa am solo am na solo bi nga xamante ni maanaam ñu koy may sax des fois bu ñu leen expliqué duñu xam ci ne parce que ki may deret balaa ñoo jël sa deret di ko jox keneen ko soxla benn malade il faut ñu segg ko xool ko mooy ñu def ci un bilan koy def ay analyse lu mu gàtt gàtt gàtt am na cinq pathologies yoo xam dañ ko ci xool benn bi di hépatite B bi benn di syphilis benn di VIH sida benn di groupe sanguin des fois sax dañ ci defaale VIH C bi donc yooyu yëpp boo ko dee xaymaa tey ci coût maanaam nit bu waroon jógal boppam dem hôpital ne dama bëgg ngeen xoolal yi nga xam ne moom lim nii lu gàtt gàtt gàtt mun nga fay 40 000 jëm 50 000 donc bu ni yéen ay doomam à la même mémoire de votre maman ngeen am initiative ne journée bi dañ ko bëgg couvrir à travers une journée de don de sang donc non pas yéen yéen a ngi aider hôpitaux yi mais yéen a ngi jàppale seen population bi xam ñoom ñoo ñëw pour may parce que képp ku fi may deret sa deret bi ñu jël ci yow balaa ñu ko jox di jox malade il faut mu demee analyser ko mooy yi may fox yëpp bu fekkente ni baax na ah, xayrun bu amee lan luñ ci également la personne intéressée sera appelée à notre niveau d'une manière confidence

d'extraordinaire man ça m'a fait même des frissons moo ñëw sama suba ñuy gërëm yàlla di sant yàlla di ñaan yàlla ñu am ndam ci bés bi yéene bi ngeen ci am ba tax ñu ñëw fii wa ngeen war ñëw fii yàlla nañuy dab yéene bi incha allah euh, dina laaj rek beneen question euh, boo xam ne dafa jëm ci ci journée bi nga xam ne mois bi nga xam ne mooy mois octobre rose ñu profitoo ci euh, nga xaw ci sànni rek ñaari kàddu jagleel ko jigéen ñi nga xam ni mu nekk ay conseils médicaux

bu ñu xoolee jigéen bu juddoo ba kër mi am borom kër ba sëy ba commencé am ay doom ñu xam doom nu mu mel ëmb nu mu mel euh, grossesse nu mel mu ko ëmb pendant 7 mois 8 mois ba 9 mois bu accouché pendant 2 mois mu nekk ci occupation doom ji ba doom ji day dem ba euh, fer mu koy toppatoo ba kër doom ji dem ba mag ba tekki durant toute cette période là lépp jigéen la du góor donc jigéen ñi amuñu sa fay li ñeen ñaanal kay mooy yàlla guddal seen fan rek te li ñu ñaax xale yi képp koo xam ne dese nga fi waajur bu jigéen na nga ko fonk na nga ko gëm na nga ko jàppale waajur bu jigéen moom mooy l'élément essentiel des des enfants ñi ko ñak nañ ñaanal seen wajur jigen ñi ñi nga seen wajur nañu tarbiyu seen wajur jigen yi lepp lu ñu leen digal ñu xam lu baax la ñu digal moom la ñu digal lan lu bon ñu jaamu seen wajur buñ ko defee ci si njëriñ asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu. tey ñun fierté la ngeen ñew fekk si ñu suñu bir gox euh, sigil ñu sigil seen. ku nekk si biir seen sœur mooy euh, suñu yaay fa Adja Anta Gaye ñu leen di gërëm bu baax di di leen sant xanaa rek di jox suñu. major Touré major Touré mu sànni si ñaari kàddu rek. après ñu ñu ñu jox représentant famille waaw kon jërëjëf li fi doyen Koli wax yëpp moo nekk suñu porte parole hôpital moo nekk suñu doyen moom moo nekk euh, en même temps. représentant des volontaires du sang ak yépp au niveau de du Sénégal donc lim fi wax ñun pratiquement amatuñ vraiment luñ ci sànni kàddu gannaaw lool dal li ñu am moy di len ñaanal di len sant di len gërëm ci action yi ngeen def action humanitaire la ñëpp vraiment gis nañ ci seen bopp hôpitaux yi dinañ ci gis seen bopp patients yi fay ñëw tam ils pourront en bénéficier de de ces dons de sang vraiment ñu ngi ñaan yàlla lépp lu ngeen fi def yàlla na leen ko yàlla fay. te yiw bi lu kawe seen jër jërë ngeen jëf ñu leen sant leen gërëm. Euh, moom fi teew ngi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen euh, ziar di leen euh, nuyu nuyu bu gën a rëy maa ngi wax au nom de la famille Gaye di leen ziar bu baax di remercier le médical. malgré votre agenda chargé fexe ngeen ba ñëw fii ngeen def ci ay jéego sonn si pour ñëw fii pour de def journée don de sang di nuyu également Zator qui est un membre de la famille vraiment lu mu sa xew ci famille bi ak ci koñ bi teewee na ko bu baax diko ko sant moom it gërëm di gërëm wa koñ bi yéen ñëpp seen taxaway di leen sant bu baax journée bi ngeen def te ñu ci ñaan yalla ngeen am ci réussite bu rëy rëy rëy rëy au nom de la famille ñu ngi leen remercier bu baax di leen dalal wa salaam. waaw Pape euh, ñaar hmm. euh, hmm. euh, bi tey bi may ñëwee bi may li ma fi fekk sax sama yaram dafa xaw a daw ndax suñu waajur bu jigéen bi nga xam ni liggéey na hôpital principal durant toute sa vie liggéey fa am fa ñu honoré ko fa bataay tey ñu jël journée bi toll nii tuddee ko ko. vraiment dafa nekk loo xam ni honneur la pour tout la famille ñuy ñaan yàlla aussi tamit ñu reyeteere ko ci yeneen zone yeeg yooyu parce que don de sang dafa baax pour euh, hôpital mën a am deret bu doy à chaque fois pour mën a sobe des vie vraiment c'est un geste noble ñu ngi leen sant bu baax di leen ziar wasalaam. waaw merci Baba kon ñu lay gërëm bu baax waaw léegi ñun ñu ngi jox kàddu gi suñu frère euh, koo xam ni. Eh, sama yaay moo ko bëggal boppam def ko doomu mui muy orang bayi, di ministre konsel auprès di presiden de la République Macky Sall mu ngi nii toog c' un ministre conseil donc moom ni mu am ci kër gi sax ñun ñii amuñu ko ci kër gi donc tey eh, boo leen ko gisee mu ñëw ak agendam nu mu chargé ndax ñun ñëpp xam nañu que eh, agendam dafa président kuy liggéey ak moom euh, sa agenda dafa chargé mais gis nga dafa bàyyi léppam ñëw uniquement pour euh, fekke bés bi donc ñu ngi koy nuyu di ko ziar bonjour ministre. aywa <laughs> bonjour grand frère. Euh, maa ngi nuyu ñëpp naa di am vraiment mbégte ci ci ñëw fii fekke lii ma tàmbali ci remercier sama jumelle Dieyna parce que man may tiatu maire bi Ah, man may tiatu maire bi mais vraiment euh, fépp fu ma yegg tay si si si politique si aduna bi c'est grâce à elle parce que mom moma dougal ci politique xena buma dougal ma ci politique heure bi may def lenen donc euh, je ne cesserai jamais de lui rendre un hommage chaque jour déjà maa koy rendre hommage parce que xamna naa amna lien bu fort buma ma ak mom ndax chaque matin euh, dana jot sama ndékki waaw chaque matin te noonu laa ko fas yéene ba keroog makoy koy fekki yàlla na ko suñu borom yeureum te djegal ko fay ko lepp lu mu def ci njabootam ci environnement parce que c'était une grande dame une dame de cœur ñun ñëpp daan tok kërëm di jang alcorane fofu la ñu déniché ñun ñii pousse ñii ci politique donc peut-être que amna lu mu gissone lu ma gisul woon moment bobu parce que je me disais que mais lii est-ce que na ci réussir mais xëy mom bobu gissone na né li moy sama yone kon nag euh, yàlla na ko yàlla jégal yàlla yërëm ko yàlla xare ko àjjana yàlla teg euh, loxoom euh, ci njaboot gi mu fi bàyyi ñuy sumay frère aussi di remercier Moustapha muy suñu taaw ah nga xam ne voilà les lien dara mënu ko dagg dara incha allah kóllëre rek ba àjjana ba ñu koy fekki dara du ko dindi dara di remercier Ardo mi taxaw Ablaye ah, Banda je l'ai aperçu tout à l'heure gisuma ko voilà ak Kumba qui n'est pas là je lui fais un coucou euh, c'est pour vous dire que ma famille la ci laa bokk ñëwuma fi comme ministre nous fi comme homme politique dama fi ñëw comme membre de la famille parce que on naa ko man maay caatu maire bi man suis topp ci Dieyna te Dieyna aussi je ngi koy remercier ci initiative bi mu jël octobre rose bi nga de ne dafa symbolique trop ci jigéen dafa am symbolique parce que le cancer tue mais tu ci les jóg dépister ko yàlla mën na le suturaal donc Dieyna bravo ton initiative a été merveilleuse euh yalla nañu yalla may ñu fekk ko ay ati ati at je pense que dañuy jël date nga xamné chaque année inshallah su moment bi jotee ñu def lu melni ñaanal suñu wajur yi ñu jitu yalla yërëm leen mais bravo ñu ngi gërëm ñëpp di nuyu wa Cité Marine di nuyu tout le monde merci beaucoup. li mu wax ni yëpp dëgg la on a sama yaay moko ko do mo mère bi la caat la donc euh, moo tax initiative, fi une lay def ñu jox suñu sœur. initiative organiser journée collecte don de sang pour rendre hommage suñu yaay Adja Anta Gaye retraité hôpital principal la ah. donc hommage bi dañ juste dans le contexte actuel Covid 19 ak octobre rose bi c'est une action de solidarité dañ ko juste pour la population cité marine ak environ yi commune dieuppeul pour ñu c'est une action de solidarité pour sauver des vies donc journée bi loolu rek la dañ ko def à l'hommage de notre maman mais aussi ñu ci yéné walé waale ñi génn aduna ci cité bi yépp ci commune Dieuppeul Derklé bi suñu papa ay ak suñu yaay donc li ki la rek dañuy répondre à l'appel des centres de transfusion sanguine ak hôpitaux yi gis nañ ni fan yi dañoo manqué deret donc yi ay action yi la lu ñuy def la rek pour di ci di ci di ci soññ aussi suñu yeneen morom yi nekk si yeneen euh, quartier yi ñu mën ko def pour dimbali hôpitaux yi ak centre de transfusion sanguine yi pour ñu mën a pour ñu mën a am ay poche de sang donc si kaw loolu aussi famille bi yëpp ñu ngi remercier ñi fi ñëw ñi fi déplacer, wu ñëw fi def fi seen alal ñu ngi leen remercier di leen ñaanal yàlla jéego boo leen dox ba ñëw fii yàlla na leen ko yàlla fay képp ku ñëw joxe sang yàlla na la ko fay si sa njaboot di rafetlu aussi seen présence di gërëm aussi wa hôpital principal seen staff bi ñu ngi leen di gërëm di leen remercier bu baax si seen engagement par rapport ak euh, événement bii ñu def waaw dañoo gis ne d'habitude euh, bu mais aussi y a une autre euh, manière de rendre hommage à ses parents par exemple genre action de solidarité Il y a pour sauver des vies donc y manière de rendre hommage à ses parents nous ñu ngi sur Dakar ñu genre action pour ñu joxe suñu deret parce que gis nañ ne deret dafa am solo ci doomu Adam. accidenté yi dañ koy soxla euh, jigéen ñi jigéen ñi waaj a accoucher dañ koy soxla léegi ñi am cancer ak octobre rose donc comme contexte bi rek moo waral ñun ñu organiser ñu am initiative bi organiser ko pour répondre à l'appel des centres de transfusion sanguine ak hôpitaux yi donc ñu ngi ñaan aussi action bii ñu def ñu réitérer chaque année yàlla diñu ci dimbali nien ko fekke ni yalla lañ ko fekke ay e ati at yalla diñ ci may ndam di ñaanal aussi wa hôpital principal objectif biñu bëgg atteindre d'ici la journée yalla lañ ko atteindre wa sitamarine ñepp ñew joxe sen direct sama yaay mom comme liñu wax rek aja antagay la tuddu ku gis événement bi rek nga xamné ki ma sha Allah ku genn aduna say dom di la defal li li nga xamné c'était une brave maman ma mom jigen bu mën goor la dafa socialone di dimbali ay nit hôpital principal di len jappalé moo tax mënoo ko rendre hommage lu dul si li mu bëgg nit ku baax la woon da daan doppale ay doomu aadama yéwén am générosité macha allah ci loolu la ñu yar moo tax ñun ñu génn mu génn àdduna ñu bëgg topp ay tànkam parce que héritage meilleur héritage mooy l'éducation li ñuy def nii yëpp moom moo ñu ko jàngal dimbali doomu aadama jàppale doomu aadama te ñu ngi ñaan yàlla loolu mu ñu yaree ñu nekk si ba keroog ñu koy fekk di ko ñaanal encore une fois de plus fa mu nekk yàlla na ko yàlla yërëm yàlla xaara ko àjjana ak bépp mbooloom jullit bu génn àdduna. waaw comme li la wax rek di top tànkam rek man par exemple fi may gis nii li tax ma organisé ko ni. dama ko jege won, trop sama xarit la woon ba mu génnee àdduna ba léegi man sama xarit la woon daal comme li ma wax donc li def nii yëpp dafa mel ni moom ma may wax ma def ko sax damay jéeg-jéegi rek def benn affaire dama nan moom moo ma ko sant parce que si loolu rek la yar dimbali doomu aadama jàppale doomu aadama moom loolu rek la xam elle a fait 30 ans de service à l'hôpital principal xam nga kooku elle est sociale dimbali doomu aadama rek ñun fii ci cité bi sax noonu lañ mel képp kuy xewle dara dañ ciy taxaw jàppale la parce que daf ñu jàngal ñuy do ñuy jàppale suñu ñuy jàppale nit nit ku am nit ku nit koo gis rek nga jàpp ko comme sa bopp loo ko mën a jàppale rek nga jàppale ko de a tax waaw daf ñu yar si diine macha allah yar nañu ci diine jàngal nañu fonk doomu aadama loolu ñu ngi koy rendre hommage fa mu tëdd j'espère qu'elle sera fière de ses enfants ak ñi nekk ci cité bi yëpp parce que lii rek la ñu jàngal ñu ngi ñaan yàlla lii mu ñu lii mu ci lim ñu yaree nii ñu sax si ba bu ñuy génn àdduna incha allah di ko fekk waaw kontaan nañ trop ñii nii ma ñoo wër ñëpp ay doomam lañ kii antagay la tudd sëtam la ñii ay sëtam lañ ñii ay doomam lañ macha allah kontaan nañ si présence ñi fi nekk ñëpp c'était juste lii moom hommage là rek bu ko don rendre bo xamné dañ ci yéné walé wajur yi nek ci cité bi yépp di wax aussi dernier appel que ne joxe sang dafa important loolu mom war nañ ko gëna promouvoir pour Sénégal Dakar jeune yi nekk surtout les ASC ASC yi nek ci gox yi war nañ wo sen sen sen sen ki sen seen membres yi ñu ñëw joxe sen deret parce que joxe deret c'est action noble là en fait waaw loolu lay terminer quoi maa leen di remercier bu baax di leen ñaanal yàlla yàlla fay leen incha allah.